réew Sénégal seen national mooy ñu def seen xeexay démb Moustapha Mbacké mooy bàyyi Seyna Fall am na tëlloo yaayam am na tëlloo xarimaam am na tëjoob nga gën a jëttuwaay dafa ne doo Bugüne çatıda kovardı. Muhrinci bilen var. Allah'ın kabulü. Zamanı tavlayın. Uyga, Alhaji Samba Seck ak Alhaji Ali Batim Mbuub mu ne seena ku doogo ku duga mbaat ay wataay mu uy jaara ñu ne nekkal ci waxtaanu tubaab yi nag alaaji kaani sam alaaji ne ko rombu atal ma la sam sàmm ku sopp na ko waxtaan ñu nak ndax do jullu rëy ndax na am na nit ay invité mak mag kii nañ jotaay bi alaaji man Mansour mbay alaaji ma de Tek ñu ngi jotaay bi kii nekkal ci machine boobu sunu jarbaat Abdoul Majid Gaye ñoo jëm ñoo jëm ngeen doon dem ba mujj Tuuba lekk ndaw ñaaw bakk na ko yóbbu jule waaye kàddu la ko ndax ko mu ko yi doon faat ma bu ko yëgëram faatu daal di ñëw maa ngi woon mi daal dajale taje di wax ak ñoom ren balaa wax ak ceeb bi ñu dee maa ngi woon faala mi ngi jaw faral di jël yaa kumba borom naat. sunu bopp yi déglu ko fii ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di nuyu di leen jëloon si seen waxtaan yi kenn seen ñu di ko déglu jumaa si jot waxtu bi ñu di ko wax Sénégal jëm xam ngeen ni du ma mën a dégg dégg jumaa si ñu jëm noonu woon si Kajoor di wax sëti lamal ba cëpp liggéey bi ñu barkee nga am ne ñu jërëte tey nag ñun dañuy ñëw ci ku rëy Yang ini, tuhan fànn yëpp ci gudd ak jikko ak xam-xam ak daraja ak wërsëg ak lépp lu yàlla jox doomu aadama bu tax ko kawe yàlla def na ko ci moom wax mooy kan waxtaan bi doon waxtaan ba mu jeex te tudd ko ndax ku ñu tudd mbokk ba tey nag dañ ko defal waxtaan spécial boo xam ne moom rek ko moom mboolem ñi ñuy déglu nag xam nañu ne Serigne Cheikh Mbacke li mu dund jëf na ci loo xam ne kenn mënu ko wax ci weer sax rawatina waxtu wu tool waaye nag ñu bokk rek maa ci yëpp ñu ñëpp wane suñu yéene wane si ñëpp suñu wareef ndax jëf nañu ko ñoom ci jëf ñu nañu ko yëpp kon nag tey suñu Cheikh Amadou Mbacke Gaynde Fatma la ñuy waxtaan suñu Cheikh nag ñu juddoo ci réew mi moo ñu waxee léegi li nga xam ne aw day ci réew mi mu yàgg te xam ne bu mu sosoo ñu di ko garmi mu am ci Sénégal am ci Kajoor ak Bawol ak Sine Saalum nee na ngar mi fi am yépp seen Cheikh sukk na nga xam ne dañoo si ñëw bi ñoom ñu ca ne ba mooy dugg ca Babour Ba Barak Jowaalo Mboban Saalum Babour Siin ñoom ñooñu ñëpp suñu si wax soxla nañ ko suñu ko wax ci daal di wax ne mu ne nañ ci duggee waaye daal ma dikk euh, dugg ci seen mbàkki maale mi nga xam ni yàlla barkeel la waxoon naa ko ci la sëtu seen mbàkki maaram ñu dëkkoo በመደበኛው ኃይል ተስተካክቶ ይችላል አንተም በቃይነተ አጥያም ይፈልግ ይለጂ ይለጂ ያሰውነ በትል ይገበ አንተ አመደ ተሆነ ብቻ አክሰስ ነው ብቻ ይለጂ ይላ አይተካል እንዳ አንተ ማንባላይስ ማንባላይስ ደግሞ ደግሞ ይለጂ አንተ ሰልካን suñu nak bu ñu xaalimu yent sali xaalimu yent sali kon ñu leen di wax soxna jaaru bu gàtt ak suwaale mu ngay daane bu ñëw bu jonjo dem na kamara ante touré jëkka joor joor taan kaan mbajaan sidang sidang dang dag h Aliou Diaby am ca sëñ bu mag Cheikh Amadou Bamba x a d i m u r a s u u Xaadimu Rasuul sëñ Tuubaa xam nga ñu wax

baaram amirul mu'minin la bu njëkk ci xarit xarit boo sol am si Cheikh Mamadou Amee sa mu njëkk di xarit si borom Touba Cheikh Moustapha da ko ñu leen di wax soxna wa cib soxna Faatma moom nga cib doo moom ma jaxase Fallou ak Sall ko mu mbee moom Modou Faatma sëy moom si la ko yëkkumba moom sëy ndaamaale keroog

xaw ma ko mu ñuy wax Madou Matar Allé. moom Allé lu Allé xalibaam ñu bokk ci xarit xam naa day bàyyi. ñu daaru Alxuraan ndax suñu mbàkkee Madina. ñoo daal di mu jàng Alxuraan ba waxtu ba suñ mbàkki màgg na ñi nga xam ne ñoo bokk bàyyi ba na tuddee maas tuuti la ko magee ba ñu yeggee seen alxuraan sëñ Touba indi leen ci seen maam xaadim rusul ni ko ko lee day jàng ñu ba ñëw yegg nañu seen alxuraan ah nga doon doon indi nag bëgg nga nga déglu leen te ñaanal leen suñ sama nag sama kàll ñu dal di gëstu جنبك فرط ناس منكم رجالكم الشباب سبتكم سبتكم ويا للهول ويا للهول جنبك رجالكم فرط ناس ñuy sëñ bamba teg loxo ci loxo ci boppam ñu ko jàngal alxuraan ma dégg sëñ si dafay jàngale béy si Luqmaan béy si fanweeri aaya ak ñett ñu ko taxawal ñu feex ñu teg ñu Cheikh Moustapha ay mu jàng fi mu toll noonu ñu ñaata aaya ci alquran ci saa yu mu nekk ñu ko fanweeri ko bu ko dundee kenn dootu ko yidif way def looy def bi sëñ bi xam ne fanweeri ak ñett Siamo stati a l l o a n a y m u d a Reina lool. a a dañu génne seen c i k dañ ci génne s u ñ d e l soo m o m nag wax li mu i g e y ci g a n a a u ñu w t a s e n bamba. c i k m o s t a p h a

cheikh Moussa dafa leen jox ku ñuy wax Modou Ngoné Dieng mu jàngal leen tàmbali leen jàngal xam-xam téere ndaw yi risaala ak ibnu asir ak téere ci topp bu ñu jàngee téere yooyu ba àggal mu di leen ci fóore du mag di ñu wax Cheikh Ahmad dem nekk njaareem Cheikh Moussa Fall téye seen loxo yóbbu leen fa waaw ñu nekk ak moom ba jàng fa biir mu ne nag naa leen yóbbu gànnaar Cheikh Moussa yóbbu leen gànnaar moom sëñ si Amadou Mbacke ak sëñ Mbacke Madina ak ñuy wax sëñ Diop lew na moom la bay Diop lew na ak Gallo Mbaye ak ku ñuy wax Abdou Rasoul Digal ñoom ñoo àndoon dem gànnaar 卖个猪吧，真心的猪吧。 terjadi sama Pak Mamuk di Jagor. Ini kerja jabalingan. gannaaw boo leen ko bëkkan ci jile boole ko mën a teel tëgg boole ko mën a neex ci jaab mi njaay mu ko léegi biram faat na daw raas na yendoo njoojam njoojam yendoo daw bi ñu yendoo yendoo naan